Samba Niang. yàggatu. ah rek soble laa yëngu moom. ah yàgg naa tuuti de. Ah. Mhm. ah man de yokk moom méttiwul moom. waaw ah, ndax fi ne daal su ma gisee quatre mille cinq cent jaay waaw. Ah. ah waaw. nu ñuy jaay ay huit mille dañoo gourmand rek. jàppale wuñu askan wi. Mhm. yow ñaata nga man quatre mille quatre mille cinq rek lu ma jaay. ah mhm. man moo am naa client moom. macha allah moom yaa gis sa bopp maa ngi ci gis sama bopp kay di ñaan Macky Sall yàgg fi te wér rek ah ñoom daal li ma wax mooy ku bëgg a ku bañ a ñàkk daal teel la jënd rek mm-hmm. yàgg na ma pare ko kenn waxatu ko manqué na ma pare lu war loolu mm-hmm. ah non importé bi moo yéexe ñëw état bi moo waroon a yebal importé bi mu ñëw rek mm-hmm. wax dëgg yàlla ñun moom buñ ci desee rek dañuy jël paak ren di gars yi de ah gars yi muñ kenn ah. amul jafe-jafe ñu jàngoro soble si lan la non jafe-jafe moom bëriwul moo wax dëgg yàlla képp koo xamante ni béy nga ba ñoral daal jaay ko njëgam mu jaar bu neexee yàlla len lu ne am na njëgam waaye béy ba pare nag naan damay xaar mu seer bu yàqu see loxo wax dëgg yàlla yaa ko yàq waaye yàquwul mhm. diggante daaw ak ren ba nga gis ba nga gis sa bopp yëpp baax na gis naa ci sama bopp daaw gis naa ci sama bopp ren di ñaan Macky Sall yàgg fi te wér rek. waaleykum salaam man cliente la ah. ah. ah seer ah wàññi wàññi dafa yomb ah seer na moom waaw ah, ndax diggante ñaari fan ñaari semaine ñu bëgg see yokk solo bi ren bi paa ñu ngi doon jënd ay kilo 200 tey 300 350 400 jëm kaw 450 ak jamono bu metti bii xam nga loo seer na ah, daaw daa mel nag da di naan dañuy ñaan yaay avancement waaye daa daaw moom ah si lañ suñu xel daal si daaw la gën a dal si comme ren ah, waaw yow daal diggante daaw ak ren ñaata lañ yokk ko waaye ñaata ren moom yokk na daal yokk na ba ñaata ay 400 cent waaw. cent mosu ko jaar. ren moom ni mu yokk ba ëpp na moom. ba ñaata la yokk ren. Eh, ay 450 jëm kaw. yéen détail nga jënd wala wala saako ngeen jënd. ñun dañu jënd saako dañu jënd détail. Mhm. waaw. looy wax ñam te ñooy ñooy jaakaar lu leen di wax. ñu wàññi dafa ne dëkk bi dafa dëgër dafa pour ñu gis suñu bopp daal nañ wàññi nañ gën a wàññi affaire seen xam dëkk fi mu toll moom ñëpp dafa métti crise bi waaw ñëpp la laal dafa métti waaw nañ xam dafa métti lépp àdduna bi lépp a yokk diw lépp doo laal dara lépp yokk nañ wàññi waaw marché amul soble 3000 mhm. lañ doon jëndee saaku bi waaye tey gis ñi ngi 4500 25 kilo bi def nañ 125 sa jëndee nag mais fi mu ne tey 300 ay jar lépp la ñu yokk ah. lépp ci li ñuy jëfandikoo muy diwlin muy lépp lépp lu ñuy ñun li ñuy utiliser rek lépp yokk nañ lépp lépp loo xalaat rek suukar ak yëpp ñu li ñuy jëfandikoo ci ñu ñuy jaay lépp yokk nañ. en tant que jaaykat nañu yokk yokk ban ci métti métti te mënoo yow yow miy jaay nii xas nga tàmmal sa client yenn prix ba pare mënatoo koo yokk xam nga wàllum lekk moom boo xasee ba fixé surtout ay xale man si arrêt bi laa rek arrêt jagataay fixé naa leen benn place mënatuma di xëy di yokk comme ni biki di yokkee ak yooyu mënul ñàkk da ngay taaba taaba rek xam nga moom. xaas nga taal lépp la mën a indi léeg-léeg nga jaay ba pare sax pour nga versement sax sa xaasu mburu sax day duggaat ci biir jaay bi versement sax doo am da ngay jël da ngay mujjee obligé jël sa xaasu mburu dugalaat ko ci li ngay liggéey versement bu yi di des ci foofu la lay laal foofu la lay xaar daal. une semaine. Mhm. wax ci jaaykat yi ak la nga wax ñëpp ñu à chaque fois ñooy jaayante muy lu jëmee. waaw li ma leen di wax mooy ah dolli góorgóorlu métti na moom waaye moom jaay ma wecc moom la suñ fàll dina am incha allah jaay ma wecc ma lu métti métti jaay ma wecc ma moom day am bu suñu borom. yéen borom kër yi métti na. métti na moom métti na trop waaye nag yàlla baax na.